na mënu ko asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigal loolu cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke moom sëriñ basiru xalif général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wéex ci njiital ak ci kilifteefu sëriñ moustapha mbàkke abbas ànd koog mbooleen taalibe yi nekkee ci diwaanub kaolack ñoo am mbégte di leen yëgal ak woo ci bisub mbaleen poroxaan di bis bi nga xam ne ci la ñuy dem setal dëkk bi nga xam ne moom moo di poroxaan ngir waajal màggaluk soxna jaara gi bisub mbale moomu ñu ko jàpp dimanche dëppoog le 15 janvier 2023 ñoo ngi déparé ci rond-point Serigne Mountakha Mbacké bi nekkee ci passoir Kaolack bu 7 jotee ñu ci woo mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ak képp koo xam ne jëf lu baax ñor na la ngeen ñëw jàppale leen ci mboolem jumtukaay yoo xam ne dañ ko yittewoo ci mbale mi lu yombalal taalibe yi seen dem ak seen dikk ak lu jëm ci bernde yi nga xam ne moom lañ leen fay waajal mbale mi dimanche lay doon dëppoog le 15 janvier 2023 départ bi 7 heures lay doon ci rond-point Serigne Mountakha bi nekkee ci passoir Kaolack képp ku ci bëgg ay leeral mën 52 59 wala 78 111 12 17 wala 77 023 03 03 wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jaara bu géeyoon kon bi ndeefi tey